ahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki chrétiens yi mbokki évangéliste yi képp koo xamante ni rek yaa ngi soqeekoo ci suñu maam aadam man Pape Niang social maa ngi lay nuyu di am mbégte ak cofeel ak xol bu sedd lool jàkkaarloo waat ak ami internet yi ci bis bii tey di dibeer yamook ñeenti fan ñeenteelu fan ci koor gi wax dëgg yàlla di ñaan yàlla ni ñu ko tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim yàlla nañ ko àggalee ak alhamdulilahi rabbil alamin Pape Niang ànd ak assistance sociale bi di leen woo yéen ñi nga xamante ni yéen ñu safoo di ñu topp ci YouTube bi di ñu topp ci TikTok bi di leen yëgal nouveau chaîne YouTube n'est papnya officiel nek PEN TV Je invité à képp ko rek sama soppe nga wala nga may baye xel wala limay la nga chaîne nga abonné inshallah, ay vidéo sociale yu ama am solo vidéo yu daw yaram vidéo yo xamanteni dina tax nit ki di baye xel bopam di xel TV la chaîne sociale di nouveau chaîne officielle bu papnya. tay yamok diber. ñeenteelu fan bi ñu tàmbalee koor gi ak léegi ñu ànd ak bonne volonté yi ànd ak defkatu lu baax yi ànd ak jaamukatu yàlla yi mu mel ni lañ doon joxe sax jeexagul waaye mu am benn soxna boo xamante ni mi ngi dëkkee fële ca booru Liberté 6 buggul ku ko tudd buggul ku ko sant buggul ku ko gërëm ba may dem daf ni ma pap ngir yàlla ak yonent bi bul ma jëlal benn vidéo li ma bëgg rek mooy comme ni ngay def ma jëkkati sama ñaq jox la ngir nga dem dimbalil ma jaami yàlla yi te yàlla rek tax su ma ko mënee woon ni nga koy defee dama koy defee ni nga koy defee wax dëgg yàlla mu jox ma juróom-ñaari saaku ceeb bu 25 kilos parfumé jox ma juróom-ñaari euh, juróom-ñaari saak bu ci nekk di def 5 kilos jox ma meew wax dëgg yàlla ma di ko ñaanal yàlla mi nga xamante ni moo tax mu def ko yàlla na ko yàlla suñu borom fay ñu ngi fii nag ci diwaanu Pikine kër gu doy waar soxna soo xamante ni mu ngi dëkk ak njabootam foo xamante ni maanaam wóorul ndax nekk na bërëb boo xamante ni suñ leen fi mënee gaaw a gaaw évacuer leen jëlee leen fi ngir mu cël leen dana baax borom këram liggéeyam demewul noonu day nekk rek di ngàcc foos xeebaluñ ko ko ndax liggéey la moo gën jël alalu jàmbur waaye moom ci boppam soxna si am tawat boo xamante ni moo ko dal daaw ba mu jekki-jekki yaram bi di xubbeeku yaram bi di xubbeeku ci kawam xamuñu ndoxum siti xamuñu ban feebar moo ko dal ba commencé soppi daram bi boole kook ay xasan yu jéggi dayoo mu yor njaboot boole kook ñàkk lu ñu dundee ci bis ci weeru koor wu sell wii wax dëgg yàlla ñu fas yéene ñëw indil ko xéewal gi nga xamante ni moom la ko jaami yàlla yi moom la ko sunu borom jox teg ko ci sunu loxo ñu fas yéene ko teg ci loxoom di ñaan képp koo xamante ni yaa ngi yëkkati sa ñaq di ma ko jox li nga bëgg yàlla na la ko yàlla suñu borom defal maa ngi sàkku ci képp koo xamante ni yaa ngi def lu baax na nga roy jëf ju màgg ji nga xamante ni suñu borom kattanal na Pape Niang ba mu di ko def wax ba noppi ñu daal di koy indil teraanga ji ko yàlla teralee maa ngi jaajëfal waa group def te yàlla rek tax nekk ca Michigan ñooy jàpp ci liggéey bi waaye sama mag sama xarit sama lépp fépp soxna Ndey Fatou Diop Greensboro North Carolina bu mbir yi egsee fii yaa ko waral yàlla na sa jàmm yàgg noonu lay jaajëfalee soxna ndeytaal nekk foofee ca groupe ba nga xamante ni mooy xelp Africa waaye di ñaanal sama mama Aminata Ndiaye Alaska yal na yàlla may ko wér yokk wér gi yow dara warulaa dal ndax dangaa war a wér ndax jamono ñoo la soxla néew ju doole yi ñoo la soxla di jaajëfal bu baax mama Rose mbay ñu ànd ak yaa Adama seen mu dugg ci biir ñu daal di indil soxna si li ko yàlla terale ci weeru koor gi ngir mu donte ni ñaari fan la wala ñetti fan mu noppalu ci wax dëgg yàlla am lu mu dundalee njabootam dellu santaat yàlla bu baax a baax eh, comme ni ko Baye Pape waxee egsi nañ fii ci soxna si nga xamante ne moo ñu tax a jóg ñëw fii ci diwaanu Pikine Ridis salaamaaleykum soxna si noo tudd. man maa tudd Tay Saabale. Tay Saabale mm. est-ce que mën nañoo xam lan moo dal nii soxna Tay. waaw ndoxu si moo ma nu togg sama yaram bi xool ko noonu. dem na fii ba suñu dëkk fajoo waaye dara sottiwul ñii naan ndoxu cité la ñii naan du ndoxu i léegi nag pour ma dem si hôpital yi mag yi daal ma xool vérifier ba xam. est ce que jot ngaa jotuma dem. Ousmane doon fajo am naa fa daanaka juróomi pikiir waaye dara sottiwul bindaloon na ma pommade ak ay comprimé may naan waaye daal dara sottiwul daal. Mhm. ñu gis euh, dëkkuwaay bi fii ñu bëggoon xam yan jafe-jafe nga fi jànkonteel. ah kër gi de moom mi ngi ni nawet bi moom dafa ñëw rek daanaka yàq kër gi yëpp kër gi daa feesoon dellu kom géej sama bagage yëpp daanaka yàqu na armoire yeegi lal yeegi yëpp gànnaar bi yëpp yàqu na fi. kër gi daa feesoon de fan yi rek la borom kër gi commencé woon di ko sëq ni pour defaraat ko. maanaam su ma déggee mooy ne fii dang nga fay luwe. waaw dama fay luwe ñaari nekk laa fay am. Mm. sa borom kër. mi ngi ni tëdd sànq la wàcc. Mm. am nga ay tout tànk. waaw am naa juróom-ñaari bant. juróom-ñaari bant. Mm. dundin bi nan la demee ak xale yi. ah sant yàlla rek ñuy dañ daan génne ñu ñaar di test si waaw depuis ma feebar daal ma am kersa di génn. génn ci biir nit ñi sama jëkkër rek mooy génn di indi waaw man tam moom wax wax dëgg yàlla moom musuma bañ a kii toog nii di xaar rek dama daan génn di jaay dama doon jaay sax ndekki si buntu bi waaw xam nga ni nga mel ni nit ñi dañuy am complice pour ñëw di jënd si yow depuis daaw jaayuma defuma dara maa ngi toog sama jëkkër rek mooy génn di indi depuis daaw maa ngi nii toog jaayu ma sama jëkkër yi génn di dem ah, ñuy woo bonne volonté yi ngeen jàpp jàppale sunu sœur ndaxte wax comme wax na dëgg ni mu mel nii mënut jaay lekk amaana que su jaayee am na si ñoo xamante ne bu ñu gisee ni mu mel ñu dañuy dañuy seexlu fekk ne amaana que set du sax tilim waaye suñu borom moo ko teg nattu kon nag ñuy woo ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy seetaan à travers chaîne bii nii ñuy ñëw jàppale suñu sœur ñu ñëw jàppale ko te yàlla tax ndaxte nag ye yeyoo dimbal ndax ku dugg fii nii ci biir kër gi ba baa ngay egsi fii ah di nga gis lu yéeme de fii te juróom-ñaari bant benn rek dafa dafa doy waar pour dundal ko sakkaa nag suñu borom dogal mu am si juróom-ñaar ah, ñuy tàllal sunu loxo rek képp koo xamante ne mën ngaa mën nga koo jàppale nga jàppale ko te yàlla tax gis ngeen dëkkuwaay bi ni mu mel gis ngeen néeg bi ah, ku fi dugg rek moom wax dëgg yàlla di nga xamante ne ku lu lekk ku lekk jafe looy fajoo mët wax kon nag ni ngeen def ko ni ngeen ko daan defee ginnaaw kaa bu ñu mësee dugal ngeen teg ci seen loxo kon nag bii nii ñu leen ci ñaan ndimbal bu baax a baax te yàlla rek tax. maa ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñëpp bay Pape maa ngi lay ziar di ziar soxna si kii xam sama xamante moom man dama nekk nit nga xam ne mënu ma gis nit ki sonn sunu borom moo may dogal chaque jour su ma yeewoo ba teg sama tànk si buntu kër sama borom day tax ma dajeeg moom ne taj su ma ko gisee rek damay jaxasoo du ma mën a lekk duma ma a def dara. boobu aw ma abset pour yegg si moom am sama benn xaytu yaay bu romb ma ne ko tam fa juuf mu ne ma naa ma ko dangaa xam kii mu ne ma waaw man ko fan la dëkk mu ne ma ci bi ma ko kii ban jàngoro lay woyaale mu ma ah man de xaw ko ma ko ah man de dama koo gis nii yërëm ko aw ma doole nag de mais am naa samay nit pour ut ñu ko jàppale bu muy faj ko ndax kii da ngay xam ne kii dafa feebar mu ne ma ah demal këram ma xëy yeewu ñëw këram toog waxtaan ak moom laaj ko ma ko ndax mun naa laa vidéo mu ne ma waaw man ko daa am ñu ma lay bëgg a boole ndax am naa ay nit ñu ma mën a boole ndax ñu faj la ndax gis naa lii ngay dund dafa met mu ni ma waaw d'accord ma vidéo ko mu ko vidéo léegi nag am dugal sama estati am samay contact nga xam ne ma dugal leen am ñu siy jàpp ñii di ma may ay yére ñii di ma jox ay kenn xam ay weccet ma koy dajale di ko jox léeg kuy dem marché buy jënd jën am na kuy jaay jën suñu buntu ko dama ko naan demal jël jën su pàq bu dee foofu man ko demal bàyyi njëg jox la këriñ c'est que aw ma mais am naa samay nit nag maa ngi ñaan nag bonne volonté yëpp ñu ñëw jàppale maire bi ndax sonn na mu ngi juróom-ñaari bant loxoom jotul ginnaawam mba nii mu feebar ni mooy dem marché day dem marché sax miir daaneel ko fa mu ñëw tëdd nii wallahi jëkkëram amul doole day vidé foos te yaa ma gën a xam dëkk bi maa ngi ñaan rek ngir yàlla ngir jëmmi sëñ Tuubaa ñu ñoo jàppale ci ndox sonn na torop sant nañ yàlla suñu boroom képp koo xamante ni yow nga ci sa kaw lal làmb sa cër yëpp daj ko làmb sa xel daj ko làmb sa kàttan daj ko foo toll war ngay wax alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin war na képp kuy jaamub yàlla suñu borom soxna si li ko dal du luñ leen di nettali ndax da ngeen a jàkkaarloo ak moom lii de du ay tricage lii de ku ko xool xam ni li ko dal jombul kenn te kenn rek ko teg nag muy suñ borom na dëgërlu te bàyyeek yàlla boppam suñ borom dina tàggat ay jaamu yàlla yum nar a gërëm ëllëg yomal xiyaamatul baru ñu ñëw jàppale la te yàlla rek tax maa ngi sàkku képp kuy seetaan vidéo bii te jëmmi yàlla tax nga taxawu soxna si jàppale ko ngir jëmmi yàlla dañoo nekk ci koor gi nekk ci wàccaayu koor gi ndax dina leen di faral di dal heure lekk jot a lekku leen No déedéet loolu moom Musta am wax dëgg yàlla. mosut am. waaw dëgg dëgg rek neex yàlla. lan mooy jafe-jafe yi nga xamante ni moo ci gën a métti ci kër gi. man daal sama jafe-jafe daal mooy sama problème daal mooy sama feebar bi. ndax da ngaa woor. waaw damaa woor. tey bu fekkente ni da ngaa xëy woor suba ba jot amoo loolu dox njaboot gi nan nga koy gisee. nan nga koy dundee. ana toog jàpp si yàlla rek waaye balaa jant sax yàlla dina indi. balaa jant so yàlla dina indi mu mel ni bis yi nga xamante ni danañu xaar jant soo tey du ci bokk indil nañ ko li nga xamante ni moom moo di ñaari saaku ceeb vingt cinq kilos parfumé indil ko ñaari grosse suukar si nga xamante ni jamono bii dafa metti lool pour am ko waxuma la pour jënd ko de waaye pour gis ko rek dafa jafe ñu indil ko ci ñaari grosse suukar indil ko potu beurre indil ko potu chocolat indil ko ñaari butéelu cinq litre diwliñ ba noppi jox ko li nga xamante ni moom moo di tàndarma ak meew ba noppi daal di yëkkati juróomi junni teg ko ci loxoom ni yàlla baat bi ñu bëgg a njëkk a dégg ci moom mooy baatu alhamdulilahi rabbil alamin di sant yàlla rek. alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi sant yàlla war na jaam képp koo xamante ni sant nga yàlla dolli la yàlla suñ borom moo ni ñaan leen ma ma may leen ngeen sant ma ma dolli leen. kon nag nañu sant yàlla ngir mu gën ñu dolli waaye balaa ngay sant nag da ngay defal yàlla lu tax mu sant la kon képp ki nga xamante ni mu ngi ñuy seetaan te di ñu bàyyi xel képp ku la bëgg a dimbali tey ban numéro lañ la mën a jotee pour jàppale la ci orange money yi ak wéeb yi ban numéro. numéro 70 490 56 12 bamtuwaatal numéro bi 70 490 56. douze ci ban tur la nekk Bator Touré ngi noonu mooy ki nga xamante ni tey yàgg naa sonn ngir soxna si dëkk na ak moom am yërmande goo xamante ni fu ko waay nattu weesu na ko su ko neexoon mu def ni ñenn ñi di def bu ko rombee dem yoonam mbaamu mu waxtaane ko mbaa mu koy reetaan waaye defu ko am na xolub laabir ak yërmande ngir ñëw ci moom xam li nga xamante ni moom mooy situation mu fexe donte ni amul doole kàddoom jotul fenn fii waaye boo amee nit ñi ñàkkoo dara mu gis sama doom baay ba Fadel Niang bu dakaar ba social sama lépp fépp sama lu fu ne walaay Fadel ñëw fi ko vidéo bu ama am solo ngir bon volonté yi jàppale ko yéen ami internet yuy suivre Dakar Buzz bu leen nangu mukk an taxaw ñu wéri di TV di leen yóbbul ndam li maa ngi sàkku ci képp kuy seetaan soxna si mu jàppale ko te yàlla rek tax soxna Bator yàlla na la yàlla fay ñu yëkkati li nga xamante ni mooy juróomi junni yi teg ko ci sa loxo bul ñu sant bul ñu gërëm santal yàlla yàllaay ki la ko indil andil len ko ceeb bi andil ko diwlin ji bëgguñu wax dëgg yàlla ba li ci des ci weeru koor bi mu nekk loo xamante ni dafay da ngeen di wala da ngeen di mar damay wax ni ku la def lu lamu def ci lu di ci am lu baax billaay soxna Batoor yaa baax rek am solo adduna bi dara jaru fi dara armeru pikin yaa ngi nii bis bu yàlla sàkk ñu suul fi ay nit ñu baree bari te kenn ku ci nekk da doon dund kon nag nañuy xel te dimbali ñu ñu tane te yàlla rek tax nahali wali jali so wana moyeli yeli dañata so wana moyeli yeli dañata na Pape ñaar loxo yëkkati ñaqam teg ko ci sama loxo rawatina ñaari mag ak rakk yi nga xamante ni ñoo yëkkati seen asaka teg ko ci sama loxo waaye waa groupe def ta yàlla rek tax Michigan ni leen duñ leen ci bàyyi ngeen wéet ci ñoom it ñu yëkkati seen ñaq teg ko ci sama loxo ma di ci jënd ceeb ak suukar diwliñ ak lépp loo xamante ni maanaam dana baax ci weeru koor gi nga bett njaboot bett euh, mère de famille uuf ak njabootam nga bett ko xéwal gu toll nii amaan na fàttal nga ko bunt boo xamante ni su la ko waxoon tey di nga dégg lu rëy waaye ñu ngi sant bu baax a baax ki nga xamante ni tey moo ma woo nekk foofee ca diwaanu Liberté 6 jox ma lu toll ak ñaari saaku ñaari euh, saaku 5 kilo suker, wax dëgg yàlla teg ci meew daal di ma koy jox ni ma sëñ defal ma ni ngay def ndax ni ngay def neex na ma bugul buggul tudu, bugul tudd buggul bugul ko sant buggul ku ko gërëm waaye yàlla mi nga xamante nga def jëf ju màgg ji yàlla na la aji màgg ji fay lan mooy kaddu yi nga xamante ni moom ngay ñaanal Sénégal di ñaanal bonne volonté ñaanal defkatu lu baax yi ngir yàlla suñu borom nangul leen ko. ah xanaa maa ngi leen di bàyyi yàlla rek yàlla ne yàlla fay yàlla mu am fay yàlla fay leen may leen wér gudd fan musal leen si cat bëtër mi aw ma fayam yàlla rek laa koy bàyyee. Hmm. jërëjëf soxna yàlla rek laa koy bàyyeel bàyyi nga ko ku am fay damay wax ni képp ku tax benn doomu aadama def lu baax lépp lum def ci lu baax sunu borom dina ko ci fay baax waaye billaay batóor yaa baax